la la عبادات ba ma ñu ubbi feneen tari feneen tari feneen tari fekkoon ki nga ak ki nga mbokk diglu kàddu gi bàyyi ci sëñ sëñ sëñ Talla ci sëñ Fallou si ci ministre Dame Diop ñu ñu diglu diglu ko. bi ne asalaamualeykum. wa rahmatullahi taala wa barakatu. sëriñ Mor mi fi nekkal sëriñ Abdoulahi Fall Ndar. ak njabootam gépp mi ngi nuyu Serigne Dame Diop mii toog. mi nekk ministre. te moom de ndomba gin ko takkal. mel na ni. mel na ni wàññiwu ko dara ak taalibeem. wàññilu ko dara ci taalibeem. ndax bi mu ñëwee fii. sëñ bi daf na ko toogal ci kaw. mu ne ko naa toog fii ci suuf. kon. ñun xam na li doon. waaye yëgut li mu waaye yëgut li mu yor. mais sëñ Sidi Diop mii. ñu ko sëñ bi mi ngi koy xamal na ko. moom it taxawaayam rafet na bu baax. ne sëñ bi mi ngi koy sant bu wér. di ko jaajëfal bu wér. te di leen xamal ne. sëriñ bi de. li wolof di wax. ne genn ab golo gudd na. waaye loo ci laal. borom dana ko yëg. ne li ngay def ci njaboot gi lépp. sëñ baa ngi koy yëg. mi ngi lay xamal ne ngi lay xamal ne. foo toll foo del wax amin di la fàtte mukk mi ngi lay ñaanal fu mu toll. daraja joo am. sa borom dolli la daraja ju kopp. ndax yàllaa ko moom. te moo koy joxe. ku ko soob rek la koy jox. yàlla na leen ko jox. kon sëñ baa ngi leen di xamal ne. mi ngi ñaan ci bis bu tedd bii. di bisu eet. ñoo xam ne dañoo liggéey. liggéeyal Serigne tuba ak maam Cheikh Rafal ba bisub tey liggéey bi war a jeex nag jaajëf des ci jaajëf jooju ci biir yàlla nañ ci bokkuñu ñun yàlla bu nu ci kenn raw kon nag sëñ bi nee na ak cant gu kawe def na ko ci yéen di leen xamal ne dëkk bii ñu ne muy dëkkub Serigne Touba di njaareem sëriñ bi am fi fukki at ak juróom nekk feeg maam Cheikh Rafal lépp lu ngeen fi sàkku yàlla na leen ko suñu borom defal seex Cheikh Ablaye Fall Ndar sëriñ bi gërëm na leen. sant na leen bu baax a baax a baax. ne lépp loo xam ne yéen a nga ca. dana ko ànd ak ndax seen jëf matt na ko. seen taalibe matt na ko. seen pastef na ko. ndomba gu ngeen am. yàlla na ko yàlla gën a kaweel. ndax yàlla yor lépp. te mën na ko. yàlla na ko def. te dana ko def. jërë jëf. kon jërëjëf ministre jërë ngeen jëf mu ne mu ne mu ne sëñ jiili mii nag sant nañ ko bu baax a baax a baax ndax nee na waaru biir la ndax bàyyi jiili mii kër gii mu nekk day defar rek waaye du yàq mukk musu koo dégg mukk te bër bërki démb soxna Kiné Ndiaye ñëw na fa mu di ko xamal ne ko bàyyi jiili de sant nañ ko gërëm nañ ko sëñ baa ngi koy ñaanal mu am fan wu gudd saa borom aar ko musal ko ci lépp luy lore ndax taxawaayam rafet na lool ñun ñëpp lu nañ ko loolu nañ ko seere ci biir mbooloo mi seere ko mbokki taalibe yëpp bàyyi jiili yow daal yaa fi nga taxaw fi nga taxaw bu fi jóg mukk jërëjëf jërëjëf Fall loolu de waajuróom waxat na ma ko wa na ma sëñ Jili Fall mii yàlla xam na ne jur na ko te dana fi yàgg amiin jërëjëf monsieur le ministre jërëjëf yàlla na la buur yàlla dolli kàttan bi yàgg sëñ Sidi jërëjëf al mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim barke Sëriñ Touba barke maam Cheikh Ibrahima Fall ah mbokk yi ñu ngi leen di ziyaare di leen nuyu ci tey bisu iit bi korite ah, di ñaan yàlla yàlla yàggal fi sunu kilifa yi di tàmbalee ko ci sëriñ Muntaxa mi fi nekkal sëriñ Touba teg ci sëriñ am Amdu Moodu Mbenda Fall mi fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall teg ci njabootuk sëñ Touba gépp ak njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ak njabootu mag ñu baax ñëpp ñu nekk fii ci senegaal ak fu dul senegaal ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal réew mi jàmm di ñaan yàlla mu may ñu ñun ñëpp ak wér ñaan yàlla mu may ñu ñun ñëpp gudd fan ñaan yàlla mu may ñu ñun ñëpp ak tal may ñaan yàlla mu may ñu ñun ñëpp ay xéwal yu dul jeex te xiir ñu ci jël xéwal yooyu liggéeyal ci Serigne Touba ndax ñun Baye Fall liggéeyal Serigne Touba moo ñuy jariñ fii di jëriñ fa ñu jëm ñuy woo tam képp ko xam ne gëm na yàlla gëm yonent bi ñu ñu lay woo ci liggéeyub sëriñ Touba yi ndax loolu ci la njariñul fii ak njariñul fañ jëm nekk ah xanaa di santaat yàlla rek yàlla mi ñu ci boole tey ñu ñëw fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall tey di fii di daaray sëriñ Ablaye Fall Ndar fi sëñ Ablaye Fall Ndar bàyyi ko sëñ Modou Ablaye Fall Ndar nekk fi liggéeyal fi yàlla liggéeyal fi sëñ Touba liggéeyal fi maam Cheikh ba tey jii kii di nekk fi di tey sëñ Talla Ablaye nekkal fi sëñ Ablaye Fall Ndar ñu ñëwoon tey julli ba pare di ko siyaare di di di di ñaan yàlla yàlla yokk ñoom ñi seenu wér ñoo moom mii di sëñ Talla yàlla na yàlla yokk ak wéram may ko gudd fan may ko xéwal yu dul jeex yu mën a gën a liggéeya maamam naka noonu xalifab sëriñ Modou Ablaye Fall Ndar bi nga xam ni moom it mi ngi ci kër gi di sëriñ euh, Cheikh Bintou Fall moom it na ko yàlla may wér yàlla na yàlla yokk fanam yàlla na ko yàlla may doole biir ak biti ba mu gën a mën a liggéeyal moom it maamam ah mbokki taalibe yi fi teew ñëppit ñu ngi leen di ñaanal loolu di ñaan rek yàlla def jàmm di yàlla ñaan yàlla mu manal ñu ba ñu gën a mën a liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall jërë ngeen jëf.